soxna Aida Saliou Thioune jëwriñ universel sëriñ Bàcco euh, sa kàddu yi am solo lool te bu nu xamee te seereew nu duñu ay gor euh, mu mel ne cib tàmbalim laa lay dooreel euh, moom day dafa nekkoon taalibe jébbalu ci sëriñ Bàcco yaakaar ko àdduna ak àllaaxira mu nekk ko am pëseef ku bëgg sëriñ tubaa te nangu koo liggéeyal ci dooram ci daaraam janatu maxwaa njëkk a tàmbalee rëgët mbooloo mi nàmpatal leen ci liggéeyal sëriñ tubaa ba ñooñu mokk mu door ñëw madinatu madinatu bi ko sëriñ bi jël kër jënd kër gi sëriñ tubaa dafa def man mii maa fekkee te man mii la fa sëriñ Béthio fekk si woon mu ànd ak sëriñ bi ñëw visit terrain bi sëriñ bi dëkk ci benn bâtiment bi ngay njëkk a jot booy dugg ci buntu kër gi sa kàddu yi moom ma yëngal moo tax ma lay leeralal ne ci wax sa xalaat gi nga wax te bu nu xamee noppi du nu ay gor sëriñ bi dimbali ko ba sëriñ bi sanc na madinatu mu ànde sëriñ bi ak rakkam yu tedd yi di soxna ajaar Saliou Thioune di soxna Botor Saliou Thioune ñi nga xam ne ay universel lañ ñiy dem di dem di dem ba mu samp daara au niveau de Madinatu amul woon courant amul woon ndox di àll di ay sëngal mu soobu nooru bañu naq ci liggéey sëriñ Touba ci jëfam du njëkk nga xam ne tànki tey sëriñ Touba yi daa gàccaal yu démb ya ci jëfam ju njëkk ji mu njëkk a def mu toll ci juróomi million bi ci topp màggal ga ca toppaat mu joxe fukki million ñu dem ba ci biir njaboot gi naan sëriñ bee koy abal koppar yi mu koy joxe sëriñ bi ne ko bul tontu yow nekkal ci li nga nekk yow bul tontu sa wax ji am na solo li nga naan dañoo bàyyi ba sëñ ca dem njabootam gii mel ni fitt gu mbër sànni dëgg la ndax ba mettee ñoom dañoo daw góor yàlla yi tey di bàkku di tëb di dal les quatre vieux yii ba mu mettee ñoom dañoo daw man les quatre vieux laa leen tuddee bàyyi illi théâtre ndar boobu parce que dañuy théâtre ci théâtre lañ tool ndax ba jamonoy liggéeyal sëriñ Touba taxawee soxna Ayda di liggéeyal sëriñ Touba ak rakkam yi tedd yi ñoom ña ngay nelaw di wëndeelu màggal ga ca topp mu joxe waat vingt millions mu yéem leen lool màggal ga ca topp mu joxe cent million ca cité Djily mbay buntu kër université Soxna Bator maa yoroon leketu ca fel ga màggal ga ca toppaat mu joxe deux cent millions nga xam ne tànk tey Serigne Touba yi day gàccaal yu démb ya te ku sant yokk màggal ga ca topp mu joxe 300 millions ab tàmbaleem de moom soxna Aida Saliou Thioune mii taalibib sëriñ Béthio bii jaam jaamaatam bii màggal ga ca topp mu génn sasu un milliard joxe ko moo rakkam yi tedd yii soxna Botoor soxna Adja sasu 500 millions joxe ko soxna Botoor 300 millions soldaari sëñ Béthio yii. nga xam ne tey fu cant gi yegg ñoo ko fa yóbbu ñoo yar mbooloo mi ci xasida yi jàngal leen jëfal sëriñ Tuubaa ba nga xam ne deret la ci ñun nga xam ne tey liggéeyal sëriñ Tuubaa bii muy def ñi naan di tudd ci di tudd leneen naan ay ay ay ñu ne ci ginnaawam ay lëboog yooyu <laughs> yéen jum juum xaalis sëriñ tubaab yi moo at lañ koy dajale kenn ku ne nag cinq cent mille ngay sasu at la ko dajale bu gént jo génne jotee mu génne ko jàkkaarloo ci kanamu sëñ Béthio mbooloo mépp toog mu liir jëwriñ junne sablis la nga fa joxe ak la nga dugal ndimbal googu la defal sëriñ la def ci digganteem ak ub sëriñam boo demoon ci ay tuut tànkam yu góor ñooñu sëñ Béthio defu leen doxalee sa diggante ak sëñ Béthio bàyyi ay jëwriñu sëriñ Béthio lañ ay tànk tout tànkam yu góor su ko neexee bàkku ndax lam fa am ciy góor kenn amu ko fa su ko neexee day bàkku ñi di wax ñépp du seen moroom ñoo yay tiit nag waaw sëriñ Touba def bu jënd nag yi jotee sëñ bi yebal ko mu dem Mali te dërëmu sëriñ Touba gi ñuy denc at ba at dërëm musu cee manqué bu dajaloo jotee ñun jëwriñ yëpp dajaloo jëwriñ diw yi moo jox temps sëñ Béthio ba fichier bi mat yàlla def bu jëndee nag yi indi ñëpp bëgg ndax koppari sëriñ Touba ñu jox la ko te dara mus cee manqué loolu lañ ko wóoloo naw ko dénk ko koppari sëriñ Touba ndax fii ku ne lekk nga fi koppari sëriñ Touba nag sëf moom sëñ bi wóolu ko dénk ko lépp jiital ko muy universel di sunu jëwriñ ku nangoo liggéeyal sëriñ Touba kuy dox ci lu rafet ku mën a dimbali taalibe yi taalibe yi duñ ko bàyyi de taalibe bu ci ne fa nga yëngu moo la fa teg ngay liggéey na ko ñë ko ñépp def ku sa bët xong mu faj wax li nga wax laa lay leeralal te buñ ci bu nekkee taalibe sëñ bi te waxuñu li xew duñu ay gor du nelaw guddi du nelaw bëccëg mook rakkam yi tedd yi soxna Adja soxna Botoor booba ñii kenn gisu leen sëriñ tubaa may ko mu bëgg sëriñ bi lool amuk taalibe yaru du dox musul dox ci lu ñaaw barke sëriñ Saaliw sëriñ Tuubaa dimbali ko bi mu sasoo milliard bi génne ko koro la sëñ Béthio toog ci digg ëtt bi madinatu ci digg ëtt bi naan sama taalibe yi de sant naa leen gërëm naa leen naan sama njabootu bopp gi lu toll ni màggal ma koy dajale vidéo yaa ngi fi boo leen bëggee ñu tegal leen ko ñun lépp lu nu def ak sëriñ Béthio da koo def vidéo teg amul dara lu lëndëm mu jël ko na sama njaboot gi ñi bokk ci man ganaar sax joxuñu ma ko ci màggalu sëñ ba lépp sama taalibe ma topp sama taalibe di nërëm nërëmi rek ngeen ne tekk seetaan xanaa ganaar sax am ngeen ko ak ñu ko yàgg di ruube ci pësteefam gii waaye gestuwul musul tontu musul xaste musul wax ju ñaaw musul génne lu ñaaw ci gémmiñam xanaa yërëm taalibe yi daan leen dimbali ñii moo leen wutal place ñu liggéey ñii moo leen yóbbu mu ñu tukki ñii moo leen taxaw ba nu am ay kër moom soxna Aida Saliou Thioune mii rakkam yi tedd moo leen def ay jëwriñ soxna Mboose moom seere na ko nee na bu njëkk dañ daan jëndi or loolu lañ xamoon yor seen xaalis waaye bu ñu demee ba xam jëfal Serigne Touba à grâce soxna Aida la vidéo yaa ngi fi génn leen ko mbokk taalibe bi li ngay wax laa lay leeralal sëriñ Touba def mu sasu un milliard cinq cent mille millions matale ko sëñ Béthio ne ko ayda yow laa wóolu sama ginnaaw ak sama kanam jëwriñ ju raam mu ne la boole naa la ak Aida na ngeen ànd liggéey sëriñ Touba ku raam ba muy ay daaray daara taalibe yi dañ leen a dénkaane de su ndénk gu wóor lañ leen dénk waa sab sëriñ nag bu la dénkee boo des gor ko ko sëriñ bu mat sëriñ may la kër defal la taraangay àdduna defal la lépp ci kaw suuf mu dénk la nga dem bàyyi ba mu wane ginnaaw nga botti sànni les quatre yi ba mbooloo mi di liggéeyal sëriñ Touba ñoom ña ngay nelaw les quatre yi laa wax de ñett ñi ñooy soldaaru sëriñ Béthio di ay taalibe bëgg sëriñ bi yamalewuñu kook dara di dox ci dëgg di wax ci dëgg tuuma nag munta ñàkk ndax yont bi sallallahu alayhi sax mooy ngën gi mbindeef te màkka gëm jóge dem ba madina lu ne lu ne def nañ ko ko waaye da koo muñ mu bëgg sëriñ tuubaa lool soxna Ayda miin na poroxaan soxna ay Ayda ci lu baax rek lay dox di ko wax waaw bu jigéen sason un milliard génne ko yow ana góor yow góor mi góor gi wax tey ana nga foo ne woon te sëriñ bi di sëriñu ñu ñëpp di taalibe moom nee na li ko sëriñ saaliw defal donn ko ci waajuram mu góor moom sëñ Béthio li ko sëriñ saaliw defal nii fekk donnu ko ci baayam kuli xamal nu liy taarixu diggante sëriñ saaliw sëriñ tubaa ñun bu ñu demee ba jëfal sëriñ Touba doon deret ci ñun à grâce sëriñ Béthio ak soxnayda màggal du nelaw du noppalu mu ngi wër mi ngi turne suut koppari dajee mu génn leeral teg ko ci valise yi jàkkaarloog sang bi wax sëñ Béthio gërëm gërëmati gërëmati waaw booba na góor yàlla yi fuñ nekk booba ñoom bu nàq nag yi jotee ñu dàq indi ñëpp amee ci cant ñëpp bég ci ndax leer nañ ñun suñu koppar yi kin ko jox def na ko ci sëriñ Touba indi na ko it ci sëriñ Touba ay doomam di jëf di sasu di joxe yi soxna ba toor doon ay jëwriñ di jëf di sasu di joxe boobaa na mag ñi ah li nga wax moo am solo sëñ bi bi sëñ bii dem di fi sëñ bi nee ñoom ñooñu ñuy wax nii di wax ni kenn ñemew ci woon a sëqat ndax ku ci ne da nga daan daw sëriñ bi ndax dëgg mu ñu dem tey sëriñ bi dem ñu taxaw ne ah taalibe yi am nañ fulla de am nañ fayda de